salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ay nuyu kilifa diine kilifa aada nuyu jullit di njaago yeeg ñëpp chrétien yi di ñaan jàmm pan seen kaw di ñaan jàmm yàgg si réew bi voilà di la nuyu yéen tam waa deux cent vingt et un di bëggee ay sa borom Dubaay xam nga di bëggee suma ga yëpp ah ay jërë na solo loolu fi may njëkkee eh, mooy eh, Crazy nga demoon benn voyage euh, mu nekkoon ci côté rap euh, loolu man laa bëgg nga ñëwaatal ma ci lan moo sababoo woon voyage boobu dem yokk sa expérience wala da doon dem foofu pour tourner clip wala da nekkoon ci say mbiri bopp. waaw yéen gis ngeen ko xam ngeen ne dama demoon voyage pour def clip. Mhm. mais si biir def clip bi tamit dem naa voyage Dubaï ñiy ibbi benn euh, banque bu tudd Albadia banque. voilà maa ko inauguré maa fa def benn son. comme fête la woon ñuy inauguré benn banque. tombé clip def clip yóbbu woon ma Dubaay ba ma fa yeggee nag ñu xam ni benn doomu Sénégal mi ngi biir Dubaay artiste bu mag la. voilà ñu invité ma def man contrat pour ma inauguré banque boobu tudd Albadia banque. Mm-hmm. tey bi nga demee foofu naka naka na lan lan lan nga fa jàng ci cadre musique gëdd biñ lay jox ak tey niñ la teeroo par rapport ak fi Sénégal. waaw dara comme bi ci limo sol yëpp sax booy xool ku ma ko jox sax newul ci musique bi. ndeysaan mi ngi foofu Dubaay sama dem la xamante ak man. Mm. en fait gañe naa fa comme yow li nga doon ñaan bëgg naa voyage bëgg naa am ay contrat mm. Europe bi. Mm. am naa ko fa. soo xanaa contrat bi ñaata la wala lan la wala na xaalis bi tool loolu suma mbiru bopp la. Mm-hmm. mais ñi ma nekkal xam ne ni dem naa Dubai voyager pour def clip. Mm-hmm. immigré fa benn banque bu tudd Albadia banque. Mm-hmm. am naa si nag as tuut bu ma àndaale tamit di si sutura ak suma nit yi nga fi fekk daal. d' accord bi nga demee foofu noonu Dubai euh, di fa tourner clip yan lan nga fa jàng ni loo gis ni carrément euh, lii am na fi te neex na ma ba tax ma ñëw fii te amul sama dëkk ci wàllu ci wàllu ci wàllu culture ak ci wàllu jàppale. non culture bi moom musique fii la ëppee quoi. Hmm. mais comme ci comment dire ci taar ci lu rafet ci lu VIP ci loo musta gis euh, fii Sénégal gis nga ko foofu Dubaï wala million milliardaires yeeg millionnaires yi recevoir nañ la. Mhm. toog nañoo ak yow ànd nga ñoom si seen Bugatti yi si seen ferar yi. Mhm. yoo xam ne gisuma ko sax senegal fii. Mhm. ok def nañ fa teraanga jëndal sëri ca suñuy yaay jëndal ko suñuy xarit ñëw mu nekk loo xamante ni. ku nekk rek boo voyagé loolu nga siy wut. ñun am nañ ko si voyage bi nga xam ni. diir bu gàtt la muy voyage Dof Ndeye Dubaay bi. d'accord. d'après voyage boobu noonu ma ñëw ci programme 8 mars bi 8 mars ñu gis ni ku ne xam na ne ci la sargal jigéen mais ñu gis ni yow da nga ciy ki nga xamante ni moo di sa yaay souvent sax du ma bëgg dugg foofu ak yow parce que am na luñ ci jotoon waxtaan ci suma benn émission ba ñu tuur fay xéwal pourquoi pour pourquoi nga choisir loolu ne man 8 mars dama ko defee fi ma dëkk sargal suma yaay. waaw comme ñi nga fi dégg am nañu yaay yóbbu comme ñi nga fi dégg am nañu yaay jëndal ko kër comme ñi nga fi dégg takkal nañ seen yaay or wala jama mm-hmm. voilà wala yóbbu nañ seen yaay Europe wala voilà mm-hmm. parce que yaay dafa nekk si li nga xamante ne nii si doom mm-hmm. man mënu ma ko nettali sax xanaa lu ma ci jot a dund rek laay wax soo suma yaay toppatoo na ma dugal na ma école jëndal na ma yore korite yore tabaski yeewu naa mu jox ma pain ànd ak man ba école Liberté 6 ma war a jàng mu tourné jël si na ma école kon yaakaar naa luñ lu ma defal suma yaay rek defal lu ma ko moom lu ma defal. kon le 8 mars bu jotee war naa mën a sargal suma yaay. Mm-hmm. jëndal ko tissu yi gën a seer takkal ko ay or teg ay pojom def ay añ ay reer ndekki. ndeysaan comme suma yaay laay sargal gan yëpp ñëw. Mm-hmm. mu nekk lu rafet. Mm-hmm. après garaawul yow ba nga ñëwee léegi kan nga ma fekkal lu ma toog. suma yaay nga fekk ma toog. loolu yàgg ko wax suma yaay bokk groupe. Mm-hmm. vidéo bu ma def suma yaay nga wet bi wala mi ngi toogee ne la. Mm-hmm. bu dul heure daal man anytime maa ak suma yaay. Mm-hmm. jur na ma fa ma war a juree. ma nekk taawam bu góor yaakaar naa ne waruma bedd sama yaay waruma ko saaga waruma ko dóor. waruma ko dàq. loolu laay dundee rek comme yow comme keneen kuy toppatoo yaayam comme ñeneen ak ñeneen am na ñu fi nekk defal fi seen yaay loo xam ne Dof Ndeye defalagu ko yaayam. Mhm. dama ci gën a fës rek. Mhm. d' accord euh, d' après d' après d' après loolu. d' accord euh, après loolu tey Dof Ndeye lan la ñu mën a xaar ci moom ci say projet. waaw suma projet war na mën a romb léegi Sénégal war na mën a nekk international. dëgg la. parce que way naa fi doom war a dundee ak yaay sensibiliser naa fi ay booy bandi comme laay fu bandi war nga ko bàyyi war nga am jabar doom xolal si ndayak ak bàyyi bandi lum la may dinga ko fay police kaso mbala dee ku déggul waxu nday déggoo waxu bàyyi soo déggul waxu maam dinga nga dégg waxu commissaire yedd naa fi ay ndaw pour indiwaat leen hmm. bandi amul njëriñ soo wax naa fi tamit doom dafa war a gëm yaayam dafa war a toppatoo yaayam. comme yi fi gars yi def rek ah. so loolu la. Mhm. tey tey nga am benn wax boo ma waxoon xam naa ni euh, doo ci bàyyi xel ma jàpp ko ba tey muy que da nga ne ma man Dof tollatuma foo xamante ni euh, damay rab wala ma génn euh, ñu naan wuy mais dama bëgg su ma waxee ñu naan ndeysaan wax jooju xam naa yaa ngi koy mu doon lu mu touché. waa loolu dëgg la dafa am leneen nu ñu war a wax muy luy defar. Mhm. mooy di ko woy moo gën a yomb ko ngay woy loo xamante ni tamit ni dala ciy roy sax di yàqu. Mhm. moo tax ma di wax loo xamante ni day am nday saan mhm. wala lii liy dawloo yaram moo gën yenn yi dëgër yi quoi yi dafa xa dañ ko war a tegee na la quoi ba si musique bi ba si anything ah. waaw dafa war a yem quoi warul dëgër. warul mm-hmm. ëpp quoi. Mm-hmm. ci message yooyu nga doon lancé xam naa fa laa ñëwee ci tolluwaay réew mi mu di actualité bi parce que comme yaa ngi koy wax léegi yaa ngi yedd ndaw ñi yaa ngi yedd band yi ci say texte ci say son yoo génnee tey réew mi fi mu toll. Euh, jaxasoo daanaka ñu bari jaaxle. Euh, tey bala maa ñëw ci sujet yeeg yi fi jot a xew euh, ban message ngay lancé ndaw ñi ak tey naka nga jàngatee taxawaay réew mi fi mu toll. waa dara xale yi ñu góorgóorlu ñu war a jàng ñu jàng mën nañ fi doon Macky Sall. ajal micro bi. xale yi ñu góor góorgóorlu quoi ñu war a jàng nañ jàng bu ñu amee xam-xam mën nañ doon Macky Sall mën nañ doon Sonko. jeunesse bi ñu xam ni ñoom seen teraanga mi ngi ci seen loxo mu ngi ci seen tànk mooy ñoom ñu jug fayitin ñu bañ a toog rek comme yi xew yi yomb yi baaxul ci góor. voilà dañ si war a dañu war a góorgóorlu jug fayitin wuti ji dërëm andil si ñu nday ak bàyyi waruñu toog rek comme di xaar xaalis bu ñëw wara ñu toog rek xool lu yomb ñu di ko amee jeunesse bi tamit dañu soxla job dëgg la dafa metti quoi pour am liggéey moo waral yeneen yi nekk si naka sudul noonu mais ñàkk job sax warul tax nga nekk si loo xamante ni suba sa yaay bu génnee ñu ni cim yaay sàcc bi ñàkk liggéey warul tax nga nekk si beneen semaine boo xamante ne nii suba sa yaay bu génne ñu naan ko yaay yaayu bandi bi mhm. yaayu raykatu nit bi yaayu agresseur bi mhm. yaayu wayu baa ni nii sàccee biñ fi doon yuuxu démb kii mooy yaayam mhm. ñàkk liggéey warul tax booy aptewu si loolu quoi so affaire bi naka la ñoom nañ jàppale politiciens yi nañ jàppale jeunesse bi ñàkk liggéey bu bari bi moo waral booy yëpp dof ah. yee ñàkk liggéey bi dafay dofloo yenn booy yi. Mm-hmm. dafay defloo yenn booy yi yenn tolof tolof yenn affaire yi. Mm-hmm. te town bi tolatuñu foofu. Mm-hmm. li ma wax ci bandi war nañ ko bàyyi moom lay waxaat ci dëkk bi ku am sa carte d'identité nga votal ko Sonko. bu la neexee nga yobul ko Macky Sall bu la neexee nga yóbbul ko keneen. Mm-hmm. mais waratuñ nekk tam si dëkk bi station bu ñu romb rek nañ leen ko taal. Mm-hmm. boo nee dëkk bi dafa met war a taal station yi. war a taal saxaar bi baaxul suñu maam yi. Mm-hmm. wara a taal ba mu laal fiiru courant yi mën na andi ay affaire tàq-tàq yi policiers yi di dóor suñu jeunesse bi ay bal. di rey xale yi. xale yi di jël ay xeer di sànni alkaati yi di gaañ alkaati yi mën na ñàkk. soo ñu xoolaat suñu dëkk bi dafa xaw a jaxasoo te dina gë te suñ si jugul kilifa diine kilifa aada yi dina gën a bon. d'accord euh, li nga wax ni am na solo parce que tamit lii la ñuy xaar ci yow damay wax ni porteur de voix boo ko nekkee même bu dee benn nit moo lay topp sax euh, fii réew mi toll yaakaar naa am nga ci part de euh, tey ñu gis ni fan yee passé kii di Seydina Ousmane muy Ousmane Ousmane Sonko génn na doon wuy ji mu jur coow lu bari euh, en tant que sénégalais naka nga jàngatee mbir moomu. non <coughs> man côté boobu ñun yàgg nañ ñu woo te dañuy wuyu ji ñun ñun yàgg nañ ñu plainte bu ñu wuyu dañuy dem kaso bu ñu wuyu jiwul police dañuy jël si yóbbu ñu kaso. salaamaaleykum. yaa ngi dégg. waaw yàgg nañu pelente fii doomu Dakar doomu sénégalais yi. Mm-hmm. da ngay wuyu ji police ñu yóbbu kaso. Mm-hmm. wuyu ji woo police wër la yobula la kaso. Mm-hmm. wuyu ji pelente du dara. te yaakaar naa ne tamit war na mën a wuyu ji pelente ñu lijjanti dossier yi mu dellusiwaat pas dëkk bi bañ a tàkk. na ay innocent yi fi nekk yu ñu jàppeewul dara yóbbu kaso kenn taalul dëkk bi. bari na ay imaam yuñ fi jàpp yóbbu leen kaso kenn taalul dëkk bi. Mm-hmm. yaa ngi gis. Mm-hmm. nii Sonko nii Macky Sall nii yow nii keneen ak keneen defar dëkk bi boo ku ko mënti wax rek taal dëkk waru si bokk. Mm-hmm. su dee defar dëkk moo la tax a jug taal dëkk waru si bokk. man nag taaluma agressé wu ma sàccu ma waxuma gaay yi kaan dem dajji banque jàmbur yi kaan dem dajji jaaykatu téléphone bi te yooyu yëpp mënoon nañ ko influencer jeunesse bi. Mm-hmm. mais doxuma ci doxloo ma ci nit. suma aar moo ma tax a jóg boole ci fulla gu bari. parce que li nga wax nii am na solo parce que gis nga bi coow li amee euh, am na sax ñu bari ñoo xam ne cité woon nañ ci sa tur mu indi woon polémique yu bari euh, tey tamit dafa dafa baax nga toog leeral lool noonu euh, devant tout le monde ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. man ñoom dañu xamul rek dañuy wax maa ngi dégg sax yi ñuy wax man dara ñoruma lu dul jeunesse Grand Yoff ni ñu tekkee. dara yoruma lu dul jeunesse su xaar yàlla mhm. dara yoruma man lu dul gis lu dul ku mel ni mama jaaga yaayu waale ma dem fa am fa sumay million ñëw bokkook sumay xale. Mhm. gis ku mel ni Marcel Diagne dem dem fa wut sumay million ñëw bokkook sumay xale. kon rawatina man ñoom ñooy wax quoi man ba may dem. di seeti doomi président di fa yóbbu Ousmane Balde. Mhm. boobu ak léegi am na sept ans wala six ans. Mhm. du lu bees li nga may wax nii ci weer bi. Mhm. comprendre nga. soo man damay takk sumay ba may takk suma jabar di leen séddale ay 3 millions di gaare bis Dakar ba Diourbel takk samedi noppaleku dimanche takk lundi def si ay millions yu millions jënd ay ñaari nag. ak li ci dam kon du ma benn politicien bu ma si mën a jox loo xamante ni mën na lukki sama bët. ma produire suma bopp ba nekk waykat. du kenn ku ma yaa ngi dégg. ma produire suma bopp ba suma tur yegg fu nekk si àdduna. suma level bi yegg fu nekk ku nekk bëgg ma gis ñu bari bëgg ma gis ñu bari bëgg ma déglu ma bari ay fans. ñi nekk ay geezer ñi nekk naankatu sàngara ñi nekk ay milliardaire ñi nekk si nguur bi ñii nekk France ñi nekk Europe ñii nekk Gambie ñii bëgg ñii bañ noonu laa ci bari le mais jëlu waxuma ci kenn kaay nga andi sa nga votal Sonko kaay nga andi sa carte nga votal Macky waxuma ci kenn loolu ah. man mas na wane suma bopp ànd ak Sonko di liggéey ba may li déggal astafurla Cissé Lo. Mhm. ànd nañu ay campagne ma ànd ak moom ñu liggéey ma génnee xale yi ay. cinq bis six bis fii fu Cissé jëm bis yi ko doon topp yëpp man la woon. Mhm. ma loolu. Mhm. yee wayoon naa fi sax Macky Sall wayloon na ma fi way Macky Sall way ko ma way ko way bu neex yee man ragaluma loolu temps mu mag moom ba yàlla def suñu diggante yi ñu si signé woon yii ñu waxoon dina ko def di nga am lii naa la defal lii yooyu yëpp gisuma ko si man waykat laa tey Sonko su ma woowoon woowoon war ma fay 10 millions kaay suma concert nga toj ko dama war a jël xaalisu Sonko. c'est normal ñëw way Macky Sall woo ma kaw seenam dama war a yéeg way ko. Mhm. man su ma yoon newul si Waly sek ak Pape Diouf nii naa ay su ma demee si Waly Pape Diouf dina ma mere wala su ma demee si Waly xam nga lu ma fiy wax xale yi bu leen sàcc bu leen agressé bu leen toj bikitu jàmbur bu leen taal bu leen rey man loolu ba ma koy wax lii ñëwagul. laay fu bandi war nga ko bàyyi war nga am jabar ak doom bandi lum la may di nga ko fay. xoolal si nday ak baay diw yaa ngi kaso diw 20 ans diw 15 ans diw lii baaxul yaay jéggal ñu gàcce biñ la teg. Mhm. police jël suñu say kanamu nawle mënatoo génn si koñ bi dañ naan yaay yaay sàcc bi yooyu ba ma koy way di wax ak bandi yi di leen yedd par la force. loolu du lii. man président bi man dëkk bi waroon naa fi mën a am salaire boo xamante ni dina toll si un million wala deux mois wala deux millions chaque fin de mois. Mhm. parce que ambassadeur la sensibilisation banditisme. Mhm. di woy bandi bàyyi leen ko di cité ay turu raykatu nit diw moo ray diw bàyyil diw moo ray diw bàyyil mais loolu ku ko defoon fii Sénégal wala beneen dëkk ñu ray la. Mhm. ay raykatu nit ray nga rey nga woy reykat yi ne leen bàyyi leen. Mhm. parce que dafa dëggu si man dañu war a bàyyi yëfu bandi. Mhm. loolu bokkul ak dara politique. yaa ngi gis. man li ma yaayu Wally Seck jox ma lekk ko Amadou Sall gaw ma ni sax dina ma ko jox. d'accord li ma Marcel Diagne jox. gaw ma ni sax Amadou Sall dina ma ko jox. Mhm. mais Amadou Sall sama boy la sama fans la sama raq la. mais est-ce que nekkul tamit sénégalais yi relation bi nga am ak ñoom. loolu dafa yàgg ñoom tey ñu ngi doog a gis sama dossier ak Amadou Sall mais ba may dem di yobbu Ousmane Balde si Amadou Sall way Ousmane Balde ngi jeel kañ lañ koy bàyyi. mu génn jeel ma yóbbu ko si Amadou Sall boobu ak léegi am na 6 ans. Mhm. kon xam nga ni lii weer la am ni ay Amadou ñëw na mijum bujum te lool du suma détail. Macky wala Ablaye Wade wala abdu Diouf fu ñuy dugal seen teraanga loolu du Dof Ndeye moo ko leen koy wax. man am naa droit ne suma jeunesse su koñ bi nii Marcel Diagne dañ soxla ay Jakarta Marcel Diagne na ma naa la boole ku la andil Jakarta ñu andil ma 10 Jakarta ma jox xale yi ama amoo Jakarta Sadio Pata bii amul Jakarta Sala amul Jakarta kii doomu Maajara bi amul Jakarta ak keneen ak keneen. pël Fuuta kër gi pël Fuuta yi amul ñaar lii du sa caabi doo Jakarta maan. Mhm. ah caabi yi yëpp nii jugewul si Macky Sall jugewul si Amadou Sall. caabi Jakarta yi ma jox xale yi ñu siy liggéey jugewul si Macky Sall jugewul si Amadou Sall. Marcel Diagne surtout Blaise Diagne chaque année moo may tegal concert 4 milliards kii ñuy woo borom jilaas maye na fi ay këru 100 kon kooku lii jaaxalu ko. Mhm. pour mu Dof Nday ay 10 Jakarta yóbbulal jeunesse su Grand Yoff xaar yàlla bi jox leen booy bàyyi agressé wut liggéey. Mhm. Marcel moo def lii ah. Mhm. maa ngi lay nuyu Marcel Diagne. Mhm. maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax. d'accord kon doomu nday Aziz Aziz Mbaye di général. Uh-huh. chaque année ñu jox ma podium 6 millions wala 4 millions. mais lu tax gars yi waxuñu ci ñooñu. ñooñu luñ ma defal Amadou Sall deful lu ma dara Amadou Sall danaan ma. dox sa booy koñ yi xoolal ma ni am yóbbu la leen ma nii demal kii booy yi nañ leen waaw xoolal ma booy yi nañu comme noonu rek. ñi bëgg liggéey nga bindal ma leen nañu am projet. njëkk nañ fi bind projet teg ko suma loxo pour bande am liggéey ma joxoon ko kii nu mu tudd non kii Adama fay mhm. mu jël bande yi ñoom yenn booy yi wutal leen liggéey presque dix mois booy di ko liggéey di fay ko ay cent dix mille cent vingt mille. après projet boobu moo kale. moon mhm. yoon la Sonko sax bu fi nekkee mu bind projet déposé ko comme bandi yi nekk Grand Yoff ak booy dañ dafa gën a bari. Mhm. nu ñu leen mën a récupérer pour ñu wut liggéey pour ñu wàññi yëfu bandi nañ leen wutal jakarta ñi nañ leen jugal ci liggéey bi ñi nañ leen teg fii ñi nañ leen teg fii parce que dégg ngeen chaque jour fii ñu naan bakkan rey daf fi bari. Mhm. concours crime Grand Yoff ki jël bii paase rek lañ ne rey nañ ba rey suñu imam bi mais ñooñu ko am ku leen di yedd. mais kooku dañ ko war a jël def ko ci kaw a kaw a kaw. Mhm. man Amry Sall maa ko njëkk a takk jabar njëkk ko am ay doom njëkk ko ngente njëkk ko baas njëkk ko ray ay nag. ah laajal waa Senzala bi wala waa xar yàlla bi nii wala ñeneen ñi ñëpp a ngi si samay xew. Mhm. damay xewee ay million yu million millions yoo xamante ni waaw njëgu terrain la boo xamante ni sax day am décembre salon. teraanga ya ma ko yàgg a xam dama yàgg a fóotal suma yaay di dagg ay weewam di ko solal di ko defal teraanga li ma lekk si ñii ma lay limal ay Marcel Diagne yi Easy Oil pétrole la maa ngi jëflante ak moom loo xamante ne tey xanaa Sénégal buñ ko yegoon damay dee. <laughs> Easy Oil pétrole bi nekk fii Easy Oil. Mhm. essence bi gën suñu réew benn pétrole la mi ngi fi. Mhm. kooku lim ma defal ci teraanga lim may defal ci ay millions lim may jox. su ma ko waxoon gars yi dañ naan dañuy bàyyi fële ne la ña ca des daw ci kooku xanaa. d'accord mais est que jàppoon ni Dof Ndoye turam turam moo ko sonal ba tey comme li nga wax rek sa relation ak Amadou Sall ñu bëri jàpp ni Amadou Sall ah, comme li ñuy wax léegi gars yi dañuy dem di recruter fee ay nervi extra Dof Ndeye est-ce que nekkul turam moo ko sonal ba tey. nervi mooy comme bu leen taal seen station kon loolu mooy nervi. non nervi nee nañ mooy ñi ñuy jël di leen fay ñuy jàpp jeunesse bi di leen dóor. waaw Dof Ndeye turam. mais ñun kan lañ fi nekk lu dul korog fii lañ taxaw gis gendarme yi booy jàpp leen alkaati yi rang rang ay xeer dóor leen dóor yi metti mhm. ma ñëw ba ci seen chef bi est-ce que mën naa leen dimbali ñu ne ma waaw ma woo booy ñu dem calmer booy yi calmer leen calmer leen calmer leen fekk kër ngi tàq booy yor ay lu ne sonal sapeur yi sama yaram daw comme sapeur yi kër jàmbur a ngi tàq sapeur yi war ko fay booy jël ay xeer war a rey sapeur yi policiers taxaw di couvrir booy di xeex ak policiers yi. Mm-hmm. lu tollook presque ay 500 600 personnes. Mhm. mais am na tuuti rek toq bu ma daraja yàlla may ba ma ñëwee def nii sumay loxo. ndeysaan booy man la dof nday ñii booy dañuy taal kër gi rek ay sapeur lañ booy jaruñu rey booy. Mhm. ñii booy bokkuñu sax booy si nguur bi booy ñii suñuy frères yi lañu. mais noonu lañ ñu mayee jàmm après may alkaati yi ñu ñibbi ñibbisiwaat vidéo yaa ngi fii bëgguma ko sax dugal si net bi. Mhm. ñun ñëwuñu fi kër jàmbur di la dóor jaasi ñëwuñu fi fekk fi nit di la agressé rey ñu nit. ku am sa quarante yóbbul ko Sonko wala nga yóbbul ko maki man musuma fal Macky musuma fal Sonko seen papa yi ak seen yaay yi ñoo fal yen yéen sénégalais seen papa yi ak seen yaay yi ak seen maam ak seen doom ak seen xarit yi ñoo fal Sonko ñoo fal Macky Sall ba ngeen di fal Macky Sall boobu maa ngi si daw ramas ak police ngi ñëw ak jàppal ak yéen la ñuy seet ak yooyu amaguma sax quarante mm-hmm. ba Macky faloo nag ci réew mi ba war a jëlaat deuxième campagne bi la ma siisaloo ne kaa ñu jàppale ma si Macky. am na ma 300 parrainage laa bëgg ma jox ko mille parrainage sama baat ni poto. yaa ngi may dégg. bu baax frère. bañ ci amee coow ak yooyu ma téye suma bopp siisaloo nekk si géemam ba léegi. maa ngi si suma way maa ngi si voyage def sumay clip ak yooyu la ñu mujjee nii. Mhm. mais Amadou Sall du kaa ba may dem si Amadou Sall ça fait sept ans ba mu fay yóbbu Ousmane Balde ça fait six ans ba may fotow ak Amadou Sall ça fait sept ans ma ñu fotow trois jours rek sama téléphone wadd kon ma génneel la nii. Mhm. ku dee ak sa bàmmeel. Mhm. man lu ma yaakaar naa ne lu ma am rek suma yaay ji bi laa koy jëlee moo may ñaanal ne ma nii la doom kontaan naa jërëjëf merci ma génn tase ak waaju mel ni yow mu teral ma. ndeysaan ma génn ma toog fii nit woo ma kaay way ma ñëw way fa ñibbiwaat ñu xamante suba ma soxla mu defal ma teraanga. Mhm. ñëpp a ngi naan ay maki Sall ak ay Jakarta yi dof nday yor Marcel Diagne dañ ko fàtte de moo tax gars yi Amadou moo xew temps yi rek ak ak ak papa mag Sonko ñoo tax ñu foog ni foofu la jógee. Marcel Diagne politiqueul amul post si politique bi amul si dara moo ko Amadou Sall ñoo yem. Izi Owel amul si poste man ñu may jàppale yëpp kenn amul post si góor gi. ñi may jàppale kenn amul poste si nguur gi. le 8 mars bi nag tuddee naa ko Amadou Sall mu ne ma tuddee ko yaayam tuddee ko yaayu waali tuddee ko keneen ak keneen ñi ma ko tuddee ñëpp ku nekk jox nga ma teraanga te yaayu waali Seck li ma yónnee ci ay millions Amadou Sall yónnee ma ko. buñ ko sëf Amadou de mama jaaga ma dof nday yaay sama doom lim ma yónnee ci ay million ndeysaan Amadou Sall mi wu ma ko joxu ma ko. Amadou sama xarit la depuis yàgg na. mais li ma lekk si teraanga si Marcel Diagne surtout Blaise Diagne li ma lekk si teraanga si Pelli Diop doomu nday Ilimane Lamb bu Liberté 6. Mhm. li ma lekk xaalis si Yaay Waly Seck lekku ma ko ci Amadou. li ma lekk xaalis si Easy Owel lekku ma ko ci Amadou Sall. Mhm. am na ñeneen ñu may mere sax ñoo xam ni may nañ ma ay millions yu millions te tudduma seen kër seen tur. Mhm. Amadou Sall sama boy la. sama xale la comme ni ma naan booy sama fils la. noonu la deme ba ci doomu kii bi président bi nekk Gambie man rek la fan parce que man benen dynamique la génn dama nekkoon benen gaayen daw saayir way ko ay yoo xam ne boo nekkee booy da naan mais kii naka la mën a waxee lii dëgg la du dëgg est ce que moo am appareil daf nday da lay laaj par force. Mm-hmm. soo ko bañee côté boobu sa yaay na xale bi daf ma neex ndax lu muy yaayam par force. ma nekk booy benn baay Fall naga ah, taalibe maam na borom daaru daray ñàkk fay rek kenn mësuma si dégg doo dégg rey na suñ doom doo dégg jàppee nañ ko fi dorog mësuñu ko dégg doo dégg rey na fi nit doo dégg violé na fi nit doo dégg yónnee nañ ko ne ko rey jil nit wala fay nañ ko alal ba mu def fi dara Jakarta yi jot gis c'est Marcel Diagne qui m'a pour ma jox ko xale jeunesse Grand Yoff yi benn aw ma ko si. su may ñibbi nii taxi laay jël su may ñëw taxi laay jël man gaynde Amadou Sall la te bu may ñibbi damay jël taxi. <laughs> Sénégalais est-ce dof man gaynde Amadou Sall la chaque jour ñu gis suñu photo yu yu différent quoi mais ba tey ñi ma dëkkal xam nañ ne kii buy ñibbi day jël taxi dem. wala booy teg ko seen. engins yi laa ma fay 1000 francs cag-cag yóbbu ma wala 2000 du dëgg sama gaay billaay wallaay wal kitaabi tey kaabul moo ma jël si kaabul gi moo ma jël si tey moo taal motoom ñëw jël si ma sama gaal andi mo su guddi jotaatee bu may tëdd sama néeg damay jël fii taxi chaque jour ma romb xaj bu filaawo jël fa taxi barke rasulillahi te gaayno Amadou Sall laa keuz ma keuz fi ñu toog bu ma ko bippe woon mu woo ma mais alors ani kër bi mu ma may dama luwee néeg yoruma appartement sax de néeg laa yor ani milliard bi loolu suma alal la bu ma fayetin dem lijjanti ko fii ak suma gaay yi boobu ba tey xale bi heure ba tey maa ngi luwee appartement balaa may xam ñooñu suma kër yaay bi ma ko jëndal mi ngi ngeexox pareegul am sàll xam naa ko mais ani kër bu ma am fii Grand Yoff xaar yàlla ani 4 x bu ma fi dawal fii nii sama 4x4 pan na bu yàgg jógewul woon sax si moom kon yàqkatu dere nañ def nànk mhm. d'accord tey li ma fi añee suñu kër lañ ko toggee abi moo ko yàq mu ñëw saala mujjee jëndaat mboroxe ñu añ ko fii ay mboroxe la ñu añee pël fuuta bi ak benn bu wan kaar bi jógee suñu kër ani lu ma am lu kii wal na gars yi def nànk <laughs> am na solo na def nànk mm. amul sama fans la suma xarit la sama booy la comme ñëpp mm. am naa fi ñoom kaabul damay woote ñuy jënd sama ticket cinquante mille francs mm. te duñu ay politiciens ay booy lañ rek yi toog si bi mais Dof Ndeye jaral na leen bu wootee ñu jënd ticket VIP am cinquante mille francs kaabal gi mi ngi nii di ma dégg billaahi wallaahi wal kitaabi loolu lay jënd si man te bokkul si politique bi bokkul si dara am sall daf ma bëgg rek manam fay sall daf kii naka la tudd yaay waal seek daf ma bëgg rek ni ma def sama yaay rek mhm. keneen ak keneen noonu mais ku dul Amadou Sall doomu Sonko boobu sa xale la bu màggee dina ko ni papa Dof Ndeye nii Dof Ndeye naa parce que man leneen laa acteur laa boo xamante ne booy ñi ngi gis nii sama film te joué gu ma ko. Mhm. kese la doomu Sonko bu màggee na ko ne papa dof ndey kii Batman la. du gis si man daray ñàkk fayda du gis si man daray tapet du gis si man daray góor jigéen du gis si man daray géwél am xarit bu mel ni doomu président boo ñibbi jël taxi. añ bi ma añee saala moo jënd mbaraxe léegi tout taw <laughs> non non Saal taw la génnee vie may vie mbay meen bu yor beeke moo génnee tamit beneen taw teg ko si man sama wankaar suñu kër la jógee ani lu ma ani lu ñu am ani lu war a yéem gars yi si ñun ani d' accord na beneen président ñëwaat xool na xam du nekk suma suma suma suma suma fils. d' accord am na solo am na solo am na solo loolu vraiment gars yi euh, frère kontaan naa am naa mbégte jàkkaar la war moom parce que li may wax rek moom dafa doon nit koo xam ne nii. waxuma la rab bi mais li mu wax rek kuddul moom dina ko bëgg parce que boo toogee ak moom man mi yàgg a jàkkaarloo ak moom boo toogee ak moom bu waxee rek automatiquement da lay attiré parce que li muy dund wala li muy wax day fekk nga koy dundu wala nga am ku koy dund donc mu noonu coow li bari woon na nag am am crazy indi crazy tey nag Toucouleur teew ñu netaal people 221 déplacé wu ñëw séq ak moom waxtaan kontaan nañ lool ci dalal bi aussi kontaan nañ gars yi ñu fi fekk yëpp vraiment. tey euh, sa kàddu gu mujj ci émission bi. waaw comme gars yi ki ñu ŋànk nii naan ma sa xarit la sa xarit la sa nii sa naa Amadou Sall ma naan la même bu doonee suma xarit taxi laay jëlee comme genre coow yooyu noonu rek yàlla na jaamu paan si kawam. Mhm. xam nga man moom coow daf may dundal wax ji. Mhm. xam nga doomu dof laa. Mhm. doomu tuur laa. sama yaay chaque jour bu génnee ñu ni dof baa ngi ne ke dof bee mooy yaayu dof ndey xam nga man loolu moo may neex. yow léegi gis nga ko xam nga ne dof dëgg moomu jur. Mm-hmm. gis nga ko fii ah. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. man dof bu ñu mënee toog di waxtaan ba jant so. huit si suba ba. dix si guddi. kii communiqué ak dof huit si suba ba dix si guddi nga ne ko yaay damal tëdd ma doo dem <tsk> non nit yi jaaxaluñ ma. seen wax ji daf may dundal wax naa ko chaque jour coow li moo may dundal wante xam nga lu may sonal wax bu ñaaw bi ci suuf moo may lëjal lekk mooy. faute yu défenant yi di waxantu rek te dara amuñu ko wala xamuñu ko rek mais man mënu ma liir sax boo may bind fii ba suba duma ma ko liir xaw ma loo ma bind si net bi. Mhm. ñàkkuma fayda tamit ah du ma génn mukk di ànd ak nit su may ñibbi man kese maay ñëw su may ñëw man kese te kenn du ma dab de te fu sore laay ñibbi te musuma ñëw fii sama seen dagg wala sama mbaxane mais nag boo yoree sa téléphone wala nga yor sa média nekk ku soxor lu neex nga wax waaye xamal ni man dama am ñaanu yaayi de. kese moom fi bàyyi wasalaam maa ngi ñaanal ñëpp nekk si jàmm. Mm-hmm. di wax jeunesse bi bu leen dara jaral yëfu bandi bu leen dara jaral rey bu leen dara jaral yàq. booy dañuy jàng taal man taal naa fi këru nit taal fi fetal laajal kaabul gi taxaw wala kii si kaso bi laa tabaskee xam nga ñoom dañ naan damay taal damay taal laajal kii laajal ñoom dof ñoom lëfu yi. maa taal kër maamam ku fi gën a dof ñu naan ko lëfu maa taal kër maamam taal fa fetal. kaso laa bo booy xamuñu taal de te ndimbalu yaay moo tax de mais bu doon keneen li ma taal ku ko fi taaloon taal kër jàmbur taal fetal boo demee si kaso bi bu dee 10 ans dina tax nga ñibbi si sax lu ma la ko gëm mais suma yaay ju dof ji nga xam ne mooy suma gàllaaj moo tax ma taal kër jàmbur. ku fi gën a say ko laa la na dof ñoom seen geng yi ku ci gën a dof di dof doflu ba ma meree dama taal kër maamam taal leen ay balu fetal mi ngi nii di ko dégg. bu ko jarul caméra bi di ko jël mi ngi nii di dégg. jarbaatam a ngi nii xam nañ ñii ñi si ginnaaw ñëpp xam nañ li moo tax ñii xamuñu lu ci taal. quarante mooy fal nit de yóbbul leen ko Sonko wala ngeen yóbbul ko ki dëkk sama koñ fii nijaayu àll bi wala ngeen yóbbul ko Barthélemy Dias wala ngeen yóbbul ko Macky Sall man man musuma man musuma voté ah mais gars yi mënuñu ma tiital. gars yi mënuñu ma tiital ñeenti kayit laa am kayitu dof kayitu artiste kayitu tukki di dem di ñëw ak kayitu ancien prisonnier kenn mënu ma tiital du ma am xaritu doom président di jël taxi parce que jàmbaar la bu ma doon dëmm wala géwéli comme ñoom tey ma dawal ci oto yi gën a seer fii. Hmm.